mu ne liggéey bi lépp dafa dëppoo ak ni mu fi ñu koy liggéeyal ni mu ko taamoo. mu ne dafa bokk ci li nga njëkk wax muy jàppale daara yi. boroom dafa wax ne barab bi. maskana taalumi la. ak fikratu ak tafahum wa maskanu irsaadi ak taswir min sulam kon mais day mel rek li borom juuti ci barab bi yëpp rek moom lay doon waxtaane nee na li jëm ci wàllu assainissement bi sunu jëwriñ ji jiitu. bi muy doog a nekk jëwriñ. dafa demoon di ko siyaare nee na du sori fi waxtu wii ci jamono muy sëriñ Saliou. mu ne daal na ko seetle. warugar yi nga xam ne dëkk bi aajo woon na ko. mu ne xelam na yar mu ne ko dëkk bi de bu nawet dikkee. bu nu xayma woon ci juróom-benn mbedd. ñett yëpp day sakk. nee na fekk na nag booba moom ma ngaa ko dégg ci foo xam ne. mu daal wax ne loolu day musta waaw. nee na mu a teg déglu ko. mu ne loolu amoon na. warteefu état la. waaw mu ne loolu warteefu état la. te mun na koo xam na ne état bi mënu ko sax waaye yow man nga ko. waaw waaw. réew yi nga xam ne dañoo néew doole ci développé wul. Mm. mënuñu ko. mu ne ko nag waaye yow man nga ko. su fekkoon mu ne ko misaal. ci misaal su fekkoon ne dañoo song benn quartier. mu ne benn quartier boobu moom lañ fas yéene jiital ci liggéeyub assainissement bi. nga ànd ko am njaboot gépp. su booba daanoo. ñu jëlaat beneen carte. nee na kon day mujj lépp noppi rek. nee daal loolu ba amul benn temps bu mu ci tegaat wala commentaire bu mu ci teg. nee daal amul lu rek mu toll ci lu toll ci ñaari weer wala ñett. gis ay barab yu ñu jóg ay tiwoo. nee na kon dafa mel ne. nee na ñu ngi yeesal bëgg-bëggub. sunu jëwriñu dëkk dëkk bi. ñoo ngi koy sottal. nee na yàlla nañ ci dajee ak ndimbalam ak ndamam rek. làmp yi ci nee na lu mel ne làmp yi ni ñu ngi taxawee. lu mel ne ah. nga xam ne day fab leer dàqe koog lëndëm. nee day mel ne taxawaayu làmp yi sax saayir si firi na loolu. na fii dafa bokk ci liñ fi doon waxtaanee. ci jotaay ko li mu doon junj ci njàlbéen gi ne ci jataay bi rek lañ ko doon waxtaanee. loolee mu doon wax ci assainissement bi. ba tudd hôtel de ville bi muy maire bi. mu ne dajee am ko jaawale wax ne ñun de yëf yi dañ ko waroon a jox Touba ca kanam. waaye nee na bay boo ñu rafet njort rek ndax nee na raam ci ñag bi rek la jëm nee liggéey bi ñuy def moom nee day leeral nee na day leeral wax joo xam ne sëriñ Fallou waxoon na ko seexante Jóob nee na bi seexante dikkee ne ko dañoo bëggoon ku jàppale ndax dañoo bëgg a liggéeyal réew mi. nee na sëñ Fallou da ko wax ne ko loolu day xalaat bu baax la. waaye danga nga fee fekk nag ñu la fi jiitu. ñoo xam ne fi nga jaar rek lañ jaar. wuute xam-xam. wuute xam-xam. ba ne am na xam am nañ xam-xam. nayit dañoo bëgg a defar. bëgg a defar. ñu ànd ak ñoom ci loolu. soo bëggee nag mber ma. soo bëggee nag mber ma. da ngay dugg ci biir liggéey ba. da ngay ci biir liggéey ba. bu sa loxo ràññi ko. bu sa loxo ñu xaasal la rek ber la jàppale la. waaye nee na ñun ñii nee na seen loxo ngi ràññi ko de. na cërub dëkk bi bu mu mën a doon. nee doon. baye boo ñu séenu rek na ma naan suñu loxo. <laughs> <laughs> nee na daal na ñu mucc ci mbooleem gàllankoor yi ak ndox mi.